waa PAM ak waa UNICEF ñoo ko bokk fësal si àjjuma ji ñu génn lu tolloog juróomi téeméeri junni si ay nit fii ci Sénégal xiif gu metti dina leen dal ci weer yi di ñëw dinañ am jafe-jafe ngir mën a dund situation boobu nag di interpeller gouvernement bu bees bi nga xam ne dafa war a ut ay pexe ngir mën a jàkkaarloog xiif googu di menacer ñenn ci ay sénégalais daanaka sax kuréelu Nations Unies yiy yëngatu ci wàllum lekk ak wàllum mbéy ak UNICEF ak PAM ñoom ñi ngi wax gouvernement yi ak organisation internationale yi ak secteur privé yi ñu taxawal ay pexe yoo xam ne day sax dàq ngir mën a gën a dëgëral dund gi yokk tamit li nga xamante ne moom la ñuy jëlee ci mbay mi ngir nit ñi mën a lekk lekk bu doy waaye ak situation bu jàmp boobu nga xamante ne juróomi téeméeri junni si ay sénégalais xiif mi ngi leen di yoot ndax gouvernement bu bees bi dina wutali partenaires financiers yi comme ni ko Macky Sall dafee woon ci atum 2012 si jamono jooju lu tollook juróom-ñetti téeméer si ay junni sénégalais dund goo xam ne du doy ak xiif moo leen doon yott ci jamono jooju France nag génn woon na lu tolloo juróom-ñett fukk ci ay milliards ci suñuy koppar ngir dimbalee ko Sénégal ngir ay programme yu jàmp ngir xeex wàllum xiif ñu mënoon ko financer. waaye gouvernement bu bees bi Bassirou Diomaye fay jiite ko ñoom lii di souveraineté alimentaire maanaam ñu moom suñu bopp ci wàllum dund lu leen soxal la te lu fës la ci seen programme bu bees bi nga xam ne moom la ñu teg ci projet bu régime bu bees bi li ñu gën a jiital moo di xeex dund gi ñuy jëlee bitim réew ñu wàññi ko gën a dëgëral bay dundee si réew mi